waaw ñu ngi leen di présenter sunu garab yi nga xam ne li ñu ci dugal mooy baax gi mu baax njëriñ lim amal doomu aadama ñaareel ba mag ju nekk suy dog dogit a tax mën nañ cee am ak koom buñ mun a dunde te daf ñuy law ñaar yi moo ñu ci dugal lépp lu ñuy def nag suñu àdduna ñun dañuy am ndigal ci ki nga xam ne moom lañu dénk suñu bopp mu tànnal ñu turu sell muy suñu maam àndala buri góor gu màgg la woon goo xam ne nag am na téeméeri doom dundul na téeméeri at te nit yàlla la woon garab gi dafay faj biir bopp deret ak nguura ci wàllu bopp bi dafay faj bët yu neexul sinusite wala allergie ak migraine mooy feebar bi lay tere nelaw ñeent yooyu lay def ci bopp bi ci wàllu biir bi biir buy metti biir bu def ngelaw nga seere mënoo dem ci toilette ba wala nga am hémorroïde mooy picc kajoor bu ci biir ak bu ci biti ci wàllu deret ji daf koy raxas yemale suukar si ak xorom si waaye du faj jabet ku koy jëfandikoo nag doo am jabet ci wàllu yaram bi dina yóbbu coono yaram dina yóbbu sibiru ci wàllu nguura dem naa lu ëpp ñaar fukki réew musuma gis lu mel ni moom ci dimbale góor moo tax ma tuddee ko àndala buri mooy garab gi dalal xel yi boroom kër dina dëgëral ngóora te doo gaaw a daanu ñu bari nag den may woo naan ma nan ngay def ba daanu ngir yàgg gu muy yàgg ak baax gu mu baax waaye gën naa yéeme nag boo jëfandikoo garab gile su bër setee day mel ni ci guddi gi defoo woon dara loolu moo gën a yéeme ci àndala buri may wax ne mun naa nuroog butéel yu bari nit ñu bari mën nañoo am tuddee ko àndala waaye man Cheikh Ahmed Cissé ak ñi nga xam ne ñooy jaay jëlee ci man képp ku ci jànd ngir jàngoro yi ma wax te gisoo ko jëlaatal sa xaalis ndax nit suy liggéey di jaay mbir nga xam ne la muy am ci lay jox sëriñam hàddiya bu pays sëriñam soxlaa ca la koy dugal ca la nar dundee tey liggéey tur yàlla dafa war a lew ku ci gisul njëriñ loolu le delloo waatal butéel bi la ca naan baal nen la ko ñu jox la sa xaalis nii laa ko mus di jaayee lii mooy àndala buri garab gu yéeme kenn musta gis lu mel ni moom balaa dëgg laam du dëgg nag pharmacie yaa ngi ubbi di jaay benn farmasi waxul ne boo jëndee wéroo jot sa xaalis sëriñ sang ci télé bi mën naa li mën man mënuma dara garab la bu ma gis mu baax ma jënd di jaay defaruñ ko ay borom xam-xam ñoo ànd ànd ceeg tubaab defar ñu dem am ci partenaire am ci suñ tur ginnaaw bu ñu amee ndigal ci suñ kilifa di ko jaay di ko jëlee bitim réew di ko dugal ci réew mi nii leen koy jaayee lii mooy buri képp ku bëgg a xam lu leer ci Andalaburi numéro yi affiché ngay woote numéro bu nekk am na tur koo ci woo dana la jaay numéro bu ngeen gisut fii jaayalut ñu wasalaamaaleykum wa rahmatullah